الحمد لله رب العالمين مكي يكون نوغي جيغلو بو باخ تبارك الله كوم نين كو خامي رك ماشيني لا اك تامي ديريكت دا فا خاوا توي وار توتي واي نك سانت يالا باخ باخ باخ توجور دينا ام يناني بونت يناني بخي يالنا يالا باركل كون نو جيرغن جيف تي نيان دي نين ديف اندو كو نيون ني نيانالي كو سخنا ماغيت ديان دي سير تي الحاج احمد ديان دي بريمير انفورماتيسيان بو سفينه تبارك الله di sunu mbokk di sunu xarit di sunu wala di sunu lépp donc kay ñaanal yàlla yàlla ko yàlla may xolu muñ yàlla na yàlla yërëm sëram boobu jéggal ko baal ko suturaal ko yàlla dajale ko Seydina Muhammad lumière sallallahu alayhi wa sallam yàlla jox ko li muy sàkku yëpp yëpp yëpp ci àdduna moo ndayam ndeyam ju baax ji soxna Katiba tabarakallah mi ndeyu Safina waaye tamit ak sëram yu baax yi nga xamante ni ñooy bokk liggéey bi toujours ak frère am yëpp ñëpp tabarakallahu xaaj Gànna xaaj Pape Diagne soxna Laari soxna Wasoor xaaj Ousmane Lo tabaarakallah ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñoo ngi leen di ziyaara di leen ñaanal jàmm ak xéwal ak surtout ak teraanga tabaarakallahu di ñaan soxna Maguette Diagne moom yàlla na yàlla yokk leeram yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla suturaal yàlla na ko yàlla dajale ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ci barke weeru rajab bii mu nekk di weeru xéewal weeru sutura weeru teraanga weeru yokkute weeru defaru weeru ngërëmal yàlla borom bi tabaraka wa taala su ko defee mbokk yi alhamdulilahi rabbil alamin comme ni mu ko junjee tey comme bu digg àjjuma la mën naa bañ a gudd lool ndax gars yi dañuy war a dem ci course yeek ak euh, dok yeeg ñaan yeeg yu demee noonu donc euh, tabarakallahu démb waxtaanee nañu euh, wàllu ziyaara ci boppam leeral ziyaaru yàlla subhanahu wa taala yonent yi salaam malaayika yi ba ci ziyaaru animaux yi xayawaanaat leeral nañ ko ba ñëpp dégg ko ñëpp gis ko am nañu ci for ay dégg-dégg yu yaatu yaatu yaatu macha allah su ko defee tey dañoo bëggoon a jublu ci euh, beneen taxawaay ci ziar te démb tudd nañ ko Thierno Omar wan nañu ne ñun ñun dañoo war di ziarante fu ñu toll dañoo war di seetante fu ñu toll moo tax yàlla subhanahu wa taala may ñu ñuy daje bis bu nekk juróomi yoon ci jàkka ji semaine bu jot benn yoon ci àjjuma euh, at mi tamit. Euh, ñaari yoon ci at mi muy euh, tabaski ak korite waaye tamit mu may beneen daje boo xamante ni c'est une rencontre internationale universelle mondiale boo xamante ni chaque année lay am ca màkkatul mukarrama te jii màkka boobu ci boppam la ñu war a waxtaanee ndax mooy ci bërëbu ziar bi gën a mag ci kaw suuf moom la waaye ca wetam tamit am na bërëb bu gën a barkeel ci ziar ci kaw suuf mooy jëmmi ziar sax far di buntu ziar di leeru ziar di xéewalu ziar di lépp ziar mooy bërëbu seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tey ji loolu la ñuy fas yéenee incha allah ubbee barkeeloo ko kon ñu jox Thierno Omar bu nuyoo su paree ñu soog a jublu ci ci waxtaan bi incha allahu taala bisimilah Thierno. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu sëñ Jigéen maa ngi lay ziar di ziar. agence yi bokkal liggéey bi ñaan yàlla yàlla taxaw ñu fas yéene waxtaan fii tamit yàlla defal ñu si yàlla mi ñu mayoon ñu toog fii mayoon ñu toogaat ñoo ngi koy sant di jënd ci yonent bi sanda sana di nuyu mbokk safine yëpp ñoo leen di di leen ziar fu ñu mënta nekk di jël nuyu yëpp di ko teg ci loxo loxo xalifa Seydi Mouhamed Mounir ko nuyoo yëpp nuyoo waa kër maam alaaji yëpp njëgëneen yëpp ñu ngi koy teg ci loxoom di ko ziar ci guddi aljuma bi ziar mbokk yëpp di leen nuyu di leen ziar di ñaan yàlla yàlla yàlla may ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexlee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ak njëg jërëjëf jërëjëf Thierno macha allah ñoo ngi ñaan yàlla mu nangul ñu tabarakallah ziar yi nga ñaan ziar tamit mu jëm ci تبارك الله ديرم كيف دينا يبنى عندنا بي تبارك الله كما سيتي شرفا وي باتي نجاوتو شيخ عمر الفوتي نجاوتو سن مام الحاج مالك نجاوتو سن مام الحاج عبد الله ينس تبارك الله جمتي تبارك الله كيف دينا يب يب يب ب سنوا كرمام سن توبا سنوا كرمام الامام الله سنوا واكر سن مام عباس سال تبارك الله وفوتي يب وكازا ماس Sénégal yëpp waaye tamit noonu lañ noonu la ñuy ziyaare tamit tabaarakallaahu ziyaar mbokk jëmale ko ci euh, jullitu àdduna bi yëpp mm-hmm. macha allah yal na yàlla may ñëpp jàmm yal na yàlla suñu ba tey jugul ci la xew ci Nouvelle-Zélande mm-hmm. ñëpp ñoo leen di bàyyi xel tabaarakallaahu suñu amoon ay tànk dañuy dem ba foofu mm-hmm. jaale leen wan leen suñu cofeel waaye nag ñoom yëpp ñoo ngi yëg ni monde yëpp ñu ànd ak ñoom yal yàlla barkeel su ko defee alhamdulilah Thierno dafa mel ni démb sax ubbi nañ bëri ci waxtaan wi ñu suivre ñëpp xam nañ ni waxtaan wi démb sax daanaka dafa tënku ba noppi taaju ba noppi toog waaw waaye nag euh, mbir mi lu mu leer leer tamit ñu gën a leeral rek mu gën a baax lu dëgg su ko defee alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu waxee ni son borom euh, ku sañoon di ko ziyaara waaye comme moom du jëmm yu ñuy fekk ci bërëb di ko seeti moo tax mu feeñal ay mbiram ci ay bërëb feeñal ko ci ay nit su ko defee nag tey jii ñaari taxawaay yooyu mom lañ bëggono feñal benn bi moy limu def ci borop bob ñuy wax makkatul mukarrama ah di makkatul mukarrama xam ni tay dañuy wax non rek dem su benen yone du ñak ñu gëna dugg ci detaay yi ndax euh, tabarakallah am na ay débat yu fi amon ci ginnaw sax tabarakallah waye lepp yalla leeral na lepp ci ci yermandem ndax euh, amna lo xamanteni pour man worul sax worul di ci jema dugg ci jéem dugg ndax loo xamante ni ba àdduna amee ba tey moo ngi fi <laughs> waaw xam nga euh, bi yàlla son borom bindee euh, bindee àdduna même scientifique yi xam nañ ne am na am nay lu ñuy wax ay période de glace période glaciale yu amoon waaw loolu moo njëkk ci kaw suuf ginnaaw ba safara si tàkkee ba jeex glace moo mujj ñëw laataa suuf di ñëw nek édifice mooy makkatul mukarrama kon fo lolou dafa dafa graw makka waaw xolal sidna waxuma la yeneen yonent yi jiitu de ñu ëpp na de waxuma la maam de ma nga xamanteni fofu la la ak uh, hawa moy arafa waxuma la sidna ibrahim rek daanaka biñ calculer xawe rawé na uh, mm, digënté ak yonent bi mat presque juroomi jooni at juroomi jooni at waaw ñooñu ñëpp màkka la daan dem di jaamu yàlla mooy bërëb ba waaw tax suñ demee ba vingt et unième siècle ñuy poser ay questions loolu c'est c'est lu doy waar la waaw nit ñun nag ñun dara garaawul ci ñun <laughs> waaw waaye loolu lu rëy la soo ko soo ko delloo ci fa mu jógee commencé ca Seydina Ibrahim nga xamante ne diggante ba yonent presque mat na juróomi junni at waxuma la Seydina Moussa mat na presque ñetti junni at waxuma la ak Seydina Aïssa mat na juróomi téeméeri at ñoom ñëpp amul benn yonent bu demul aji màkka amul yonent yëpp dem nañu Seydina Adama sax far moo nga fa la dajeeg Seydina Seydatuna Hawa mooy Arafat hmm. kon foofu bërëb bu doy waar la xamanteni gaay dañ fay dem ndax sama borom moko jox cër amna sax ci arifina billahi ñuy wax ne makka kaaba gi ci bopam dafa bokku ci xaqiqatul muhammadiyya waaw loolu yeneen explication la waaw bërëb la boo xamante dafa am relation ak baytul mamour baytul mamour mooy la maison remplie remplie de quoi remplie d'ange waaw ñun ni ñu amee bi ci ci suuf noonu la amee kaa bu ci kaw moo tax foofu zone de turbulence la amul luy tiim kaaba gi du avion du picc dara du ko tiim waaw parce que zone de turbulence la dafa am connexion spirituelle connexion de lumière bu am ci diggante baytul maamur nga xamante ni bis bu nekk juróom-ñaar fukki junni malaayika ñooy dugg te ku dugg dootu dugg ba yàlla bindee asamaan ak suuf ba tey jii kaaba gi nekk foofu baytul maamur nekk ci asamaan. ba tey bii chaque jour soixante dix mille anges dinañ fa dugg loolu calculer ko ci ngay xam ni yàlla am na ñu ko jaamu de. Hmm. waaw su ko defee kon bërëb boobu bërëb bu doy waar la kaaba gi dafa am doole am doole ba même su la neexee nga dem doo julli doo fa zikkar doo fa def dara da toog nii di ko xool rek yàlla di la bindal tuyaaba <laughs> loolu kenn mës na ko dégg ci kaw suuf su la neexee nga dem waxuma la waxuma doo julli nag bul yaakaar ni say farata waxuma loolu de xam nga réew mi léegi dafa doy soo waxul sax ñu wax ñu ñu ñu waxal la loo waxul hmm? ma nga pour loxo bi euh, kaaba gi doo toogee di ko xool nii rek toog di xool ñoo ngi lay bindal tuyaaba soo koy soo koy wër ñoo ngi lay bindal tuyaaba soo taxawee di ñaan sax dañ lay bindal tuyaaba waaw kaaba gi bërëb boobu nga xamante ni ci bërëb yi ñu gën a ziar ci kaw suuf yonent yëpp dem nañ ziar ji ko sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam far fa la juddoo sax sallallahu alayhi wa sallam mooy makkatul mukarrama euh, foofu la mujjee tamit euh, def euh, aju tàggatoom googu ba dellu madinatul a daanoo fa sallallahu alayhi wa sallam ah bërëb la boo xamante ni ah sunu maam Cheikh Umarul Fuuti radiyallahu anhu wax nañu ne ñu kaaba gi sax soo koy soo ko gis loo ñaan yàlla mu nangu moo a Cheikh Umar bi mu jàkkaarloo kaaba gi première fois dana yàlla lu ma la ñaanati rek ñu ma la ñaanati rek may ko moom taxaw fa di parce que doo koy soo ko gis premier vue bi premier regard bi nga teg ci kaaba gi loo ñaan mu nangu moom mu ne yàlla lu ma ñaan si nangu defal ma ijaaba yàlla nañu yàlla defal ijaaba ci wàcc Cheikh Omar ci barke cofeel Cheikh Omar ci yonent bi sallallahu alayhi su ko defee kooku bërëb la bu doy waar bërëb la boo xamante ni euh, euh, day dafay wane doole yàlla ah ña koy ziyaari ji ñëpp amul buur amul président amul dara ñëpp dañuy taraxlaayu góor ñi dañuy nekk jigéen jigéen ñi nekk góor kenn musu gis loolu ñëpp daal di sol lu weex ndeysaan ndeysaan di di sàbbal di woote yàlla kenn xamul foofu góor kenn xamul jigéen ñëpp ku jot foo jot rek julli loolu amul fenn ci kaw suuf waaw ak yeneen i sew sew ak yeneen i sew sew ak nga xamante ni tabarakallahu bërëb la bu bu doy waar waaye mbokk yi euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wa ci xadis bu wér ne man xajja alxajjul mabruuru laysa lahu aljazaau illa aljanna nee na aj bu nangu dara du fayam lu dul aljana hmm. mooy ku dem ziyaari kaaba ga ah def say farata su ko yàlla nangoo yow benn pay rek nga mooy aljana kon nga xam ni kon ziyaara kaaba ga loolu lu ko gën a foor ci kaw suuf amul ndax buntu la ci buntu aljana yi hmm. waaw xanaa cerno bu dul woon dara sax dara dara dara mais adduna bi yëpp yëpp yëpp du ñuy julli kaaba ga li ñuy julli

kenn dañ ko war a protéger waaw lu mel ni alquran dañ ko war a protéger lu mel ni sunna yonent bi dañ ko war a protéger lu mel ni kaaba gi dañ ko war a protéger lu mel ni madinatul munawara dañ ko war a protéger lu mel ni makka dañ ko war a protéger lu mel ni muhammad dañ ko war a protéger lu mel ni jàkka yi dañ leen war a protéger lu mel ni borom xam-xam yi l'islam yi dañ leen war a protéger parce que yii duñ ko dammee damm nañ

am na ci yoo xamante ni fii ci France gii loolu nga màndeek nga dof ak nga tux yàmbaat yam doo ko génne sa gémmiñ soo ko waxee yàqu nga am na fii nit ñoo xamante ni kenn du leen laal ñii may nekkal fii xam na damay wax mm. du ma leen sax man mi maa ngi nii ñeme ma leen sax tudd far ndax tudd ji ma leen tudd du ma leen tuddee mën na mën na ma indi lay problème kon nga xam ni loolu duñ ko fooyee am na fii ay kilifa yoo xamante ni kenn du leen laal ku mel ni

te ku ko def da nga torox maa la ko wax yàlla sax dafa wax ne dafa bokk ci dëgg dëgg dëgg ragal yàlla ci di magal lu yàlla màggal di magal ku yàlla màggal loolu jàngee ko yéen kon kaaba gaa ngoog mbokk yi bërëb bu doy waar la il faut ñu waxaat lii ngir am na lu des ci bopp nit ñi ñu raxas ko ba set xam ni sa maam Alaaji Muhammad Ndieguene radiyallahu anhu dana wax ne suñu wasifa waan fajar ba ba génn ba génn jàkka ji ba ñëw ci buntu bëttoo bi mu jël dokkam bu tedd bi fëgg daane nañ sax ci lii hmm. ba ëllëg ku am ñu am ku amul ñu am hmm. daane na lii su nekkuloon sax dëgg yàlla def ko dëgg ngir sagale ko mag ñi déggal waay waaye dama ne xanaa yow <laughs> waxuma la sax yonent bi sax ëpp na hmm. waxuma la sax Mawlana Cheikh Tijani yow xanaa nit ñu baax ñi ñu am Sénégal rek ñooñu ñooñu rek ñu ne dem nañ dem nañ Màkka xanaa su màkka nekkul woon ci xibla sax yàlla da ko xibla ngir sagale leen ko hmm. attention yooyu buñ ko fooyee de buñ ko fooyee de surtout jeune intellectuel yi nga xamante ne lu ñu dégg ne war nañ ah oui oui ça loolu war nañ ci réfléchir ah loolu lu ñu war a xoolaat na ah, ah quand même ah il faut il faut ah, il faut se poser des questions yi hein, nangam nangam am na yoo xamante ni doo ci poser question da ngay xal ko soo mënee gëmal soo mënul demal nekk leneen l'islam dafa am parti boo xamante ni xel am na ci raison am na ci wàll mais am na ci loo xamante ni dogma la da ngay gëm baa nga weddi yàlla bu ñu weddi amiin kaaba nag moo ñu ubbil euh, madina bala ñuy génn madina nañu wax li yonent bi waxoon bi muy génn màkka pour wax leen ne leen waruñoo fooye benn yoon màkka waruñoo fooye benn yoon kaaba gi yonent bi dafa taxaw jàkkaarloog màkka nii daal ne yàlla déggal daal ne yàlla maa ngi ya maa ngi génn dëkk bi ma gën a bëgg ci kaw suuf dëkk bii fi laa fekk baax fi la ma baax fekk maa ngi lay ñaan nga yóbbu ma ci dëkk bi la gënal yow yàlla allahu akbar waaye lii foorul réew mu yonent bi wax lii suuf su yonent bi wax lii hmm? lu ko gën a foor ci kaw suuf amul sëñ daara kon dañ ko bàyyi bu baax. Hmm. ok su dul dara rek li fa yonent bi juddoo man pour man doy na sëkk ci ñu ormal ko respecté ko yonent bi fa la juddoo rek doy na doy na nag nag moom yonent bi li mu wax ci màkka yépp hmm. lam ca wax yépp lam fa daj yépp coono yam fa am yépp toroxal yam ko fa toroxal xas ya wa innahu wa yaquluna innahu la majnun foofu la amee هذا ساحر كذاب فوف رقمي ها آه. آه. هاو بدن با يالا ديكو دي دي دي دي دي دي ويد يوي آه. ويقولون انه لمجنون يالا نديرت وما هو الا ذكر للعالمين هاو دم نن بلا يونت بي واي كاتلا سي تان بويت هاو يالا نن وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين هاو يالا نن ديرت لي غندي واخ دو دغ kii mën même moom sax mënul way sax far su bëggoon way sax mënu ko waaw donc euh, bërëb la bu doy waar ñu bàyyi war ko bàyyi xel bu baax mbokk yi ah, ok li ci des ma ngoog mm-hmm. kon kon fi neex yonent bi mm-hmm. mooy Makka te fu neex yonent bi neex na yàlla mm-hmm. waaye fi neex yàlla mooy Madina te fu neex yàlla tamit neex na yonent bi waaw daarul xabib bi mooy lépp mooy fépp jaww ja sax bokkul muy bërëb bi nga xamante ne xeer sax soo ko tegee di jaay mu jaar ndax barke ka fa tëdd sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw ndeysaan waaw waaw wa madinatan rabbu sama ah sammaha waaw ndeysaan waaw ndeysaan madinatul munawwara waaw taaba tayba ah, bërëb baa ngoog ah tëdd Cerno imaamu Malik imaamu daaril hijrati nga xamante ne yonent bi wax na ci moom sax ay xadis te juddoogul di wax ne moom moo jar takk ay fas ak i gawar ngir seeti ko waaw kooku moo xam yonent bi dund na ba faatu musul def fi nit ci Madina Cerno Racine hmm. bu soxlawaan bopam day dem ba genn frontière medina ñu ne ko tax mu ne waji fi ki ñi ñoo xam yoonent bi imam malik soo ñëwaan pour mu le ben hadis xadis hadith bu gatt la wax de comme haya min al iman xam nga lu gatt la xam nga mën ko wax ni comme ni ma ko waxe day dem sangu genn sol ci yere mi gën rafet gëttu parfum yi neex kaalawu defaru ba ku gis yaakaar ni fu rëy jëm mu dem ba ci rawdu yonent bi wéeru ci rawdu bi daal ne xaala xaala waa jii nee na kii nee ko wàllu dox ngay doxal ngay doxali ni mu ne kullu kalaamin déglu racine mm-hmm. kullu kalaamin yu aw yu illa kalaama saaxibi hada al qabri waaw nee na kàddu góor dégg na am wii non pas, mm. mais pourquoi pas, mais ceci, mais cela, waouh, est-ce que du bamou des kaddu wa jitu di fi parce que wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ñi ñoo xamoon rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dañ ko xamoon ba jaani madina sax dañuy def attention ci ñoom mm. waaw boobu lépp madina dañ leen di bàyyi xel te inshallah dinañ ci ñëwaat léegi mm. xanaa xamoon ne gars yi dañuy coow rek seen coow yi yëpp dañuy coow rek waaye fenn du Madinatul Munawwara te loolu balañ koo xam ëllëg yawmal qiyaama gis nga bis ba ci la lépp di leer parce que Yaajuuj ak Maajuuj bi ñuy wax dinañ dugg fépp ci àdduna massacre ko yàq ko ba mu des Madinatul Munawwara yàlla benn contingent malaayika la fay teg mooy réew foofu rek la dul dugg loolu assurance boobu benn dëkk am ko am ko ci kaw suuf te xanaa xamoon ne sax ñi nar a texee ñépp du du de du du waxtu wi jotee yàlla da leen di jëlee seen i dëkk yóbbu leen madinatul munawwara hmm. moo tax xam madina bëgg madina dem madina sopp madina moo gën a wóor de hmm. madina du caaxaan waaw am na woyu neexu ma ci dina dinaa hmm. dinaa ko dinaa ko indi tey dafa xaw a guddi waaw waaye de waaye day la euh, mbokk borom daarul xabib xulub naa taxawaaha alfa hashim di noonu la alfa hashim radiallahu anhu Euh, nu mu ko tàmbalee tee irxal li taybata laa ta umma siwaaha ah mu ne ko fa asaa an taxza fa bi rukyati taaha waaw ah, ndeysaan ndeysaan nee na nee na nee na benn nëbu suufu Madina soo jëloon parfum yi gën a neex ci àdduna yëpp nga dajale ko def ko ci benn butéel hmm. parfum yi gën a neex yëpp nee nga teg ko jël ko teg ko ci balance jël benn nëbu suufu Madina nga teg ko nee na bi day ruus a ruus ba nekk médd di xeeñ médd waaw <laughs> ah, mal misku illaa jiifatun waaw ah, parfum yi gën a fort duñ ko dajale teg ko ci balance jël benn nëbu suufu Madina teg ko parfum yi yëpp dinañ torox am gàcce xam ni pepp suufu Madina moo leen ëpp doole ci xet moo leen gën a neex ba ñoom ñëpp dañuy mujj di xeeñ médd waaw médd la ñuy doon kooku fort na incha allah duñu yàlla dimbali ba mu gën a yaatu dinañ indi daarul xabib bi ñu gën a feeñal mbóoti madina ak dooley madina waaye mbóot mi ci gën a rëy mooy tëdd ba fa yonent bi tëdd dem na ba wax sax ne képp ko aj te ziyaaroo ma cof nga ma ay ku cof yonent bi yàlla du la yàlla du la nangul mukk cof waaw beccengal wolof beccengal la man xajja walam yazur nii faqad jafaani beccengal moom beccengal mooy cof mooy xeeb nga ma joxoo ma cër Mm. ku joxul cër yonent bi looy wut looy looy wax yàlla yàlla du loolu nangu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na boo wax ne man zaara nii fi mamaati ka annama zaara nii fi xayaati képp ku ma ziyaar ginnaaw ba ma faatoo ñu denc ma yaa ngi mel ni ki ma ziyaar bu muy dund moo tax mag ñi li ñuy def xam nañ ko de mm. waaw tabarakallah moo tax ku yebu dem mm. soo mënta dem na nekk sa xol وكسرة الشوق في لقيا لسيدنا من العلامات أما راج ماري وحنكو نينا بوكو نكي لي وانا نيت كي بغ نو يونت بي موي فوتول لغا ام بغ بغو دم مدينة اه اه ديسا دامي باج موغي واي واي ناكو مدينة واي ناكو واي ونف اه مدينة راسي واي ناكو واي ونف اه والله يالله شهر لون إن شاء الله دنيا لدي ملي بنن يون dinañ ñëw xat-xati la rek waaye am na mbokk yuñ programme woon sax ngir ñu mën a tàgg yonent bi tuuti. Hmm. ndax tey euh, Makka ak Madina la ñuy wax. fee fee la juddoo fii fa la def teraanga am. Hmm. fii def na fa euh, dem ba am 40 ans ah, def 13 ans encore mooy 53 ans ah tabarakallahu ci la génnee Madina def ma Makka euh, dem Madina génne Makka dem Madina def fa 10 ans muy 63 ans. ci la faatu sallallahu alayhi wa sallam mm. waaw kon dundam yëpp dafa séddliku ci diggante Makka ak Madina bien que am na ay jamono tukki na mm. def na ko rees kon loolu dañ bëggoon indi tubaarkala pour ubbee ko débat bi pour ñu xam ni ah, bërëb yooyu jar na du bërëbu caaxaan ñun sunu maam yi rek dana ñetti weer mm. walaay Mouhamed Ndiéguène day Makka am na ñu ci def ak mag ñi ñu ci ñi am na ñoom te suñu daan dem ak sax dañuy yeewi seeni soxna. Mm. parce que duñu jàpp ne dañuy dellu si. am na ci ñoo xamante ni tànk lañ demee Màkka maam Mbàkke tànjan ca ca Jurbel ca la bokk. Mm. ak ñeneen. ah Cheikh Umar tànk la demee. am Cheikh Umar demee demoon na benn moment boo xamante ni nee na mënatul te demul ziyaar yonent <laughs> di mën nee na mënatul dund dundam mënatul neex fekk demul ziar yonent bi waaw waaw laaj Malick moom daf ko bind jooy ko wax ko waaw wax ko waaw waaw waxal yat waxal yatibul umru in dumtu haahuna waxal na alladi ah moo ngi junj yonent bi mu ne waaw sama dund gi nan la mën a safatee xorom wala mu saf suukar wala mu saf lem taman kama sopp moo nga fee ca madinatul munawara dem na ba mujj gi waxatul sax yonente bi mais dafa mujj di di di di di ziar di fon di nuyu di jox ciir di bëggante ak xeeri madina ca abada bu ruux han dem na ba kay ba ba ba bay bay nuyu ñoom salaan waaw salaan wa salan jirati bi salam ya inna rubua busharati wa ama wa amanati ba waaw am na yu muy junj foofu waaw nga xamante ni kaare Madina ruqi Madina yi lay lay ziar lay fóon di ko màggal te pourtant boobu demagul waaw moo ba ko yàlla dimbale rek mu dem mag ñi dañ dem Cheikh dem na njabootam gi dem nañ kilifa yi ngay dégg yëpp lu nekk daj nañ ko ngir dem ca Madina waaw foofu foofu du caaxaan waaw donc affaire baa histoire bu daw yaram boobu nga ñu doon nettali tukulóor boobu noonu ca mook Cheikh Omar ca Nigéria ndekete buggul woon lu dul dem a Munawwara moo tax incha allah bu subaa du ñu yàlla dimbale wala samedi dinañ ñëw leeral waluy yàlla yi coono yi daan daj pour Madina ak yel ya fa xew waaw surtout nag Ahmed Rafaa yi moo ci gën a siiw waaw bien am na ñeneen ñu ko am am na ñeneen ñu ko am ñuy dund sax ñi am na ñu ko am am nañu ko am ndax yonent bi am na ñoo xamante ni du du leen recevoir comme ñëpp nag day génnal boppam wax ak ñoom yàlla ci yàlla boole waaw yàlla ci yàlla boole waaw kon moom mbokk yi suñ ko toppee fii la ñuy fanaan Thierno Omar euh, dégg nga waxtaan wi hmm, yàlla dimbali mel ni sax tey nga ah Thierno Racine man ah. ko ñuulaayu kaaba gaa ngi nii hmm. leeraayu Madina du dëkk. macha allah ah Madinatul Munawwara. Munawwara waaw ah, Munawwara la ville illuminée wala lumineuse. waaw ah, ndeysaan yàlla nañ fa dem. amiin man de ba yàlla séedee ne damaa bëgg Madina. te yow bëgg nga Madina kenn. yow Racine. Ah, waaw Madina. gars yi ngi pour nga may leen ci lii bi de ci bi. waaw waaw waaw xam nga rek tey euh, dafa am na mu demee. Hmm. xam nga yonent bi dafa dafa dafa fees xol sallallahu alayhi wa sallam waaw te léeg-léeg moom doy waar lool hmm. waaw te tey dañoo dañoo dugg ci mom daal hmm. waaw parce que wax sama xol ngi dem ci hmm. sama xel ngi dem ci sama xel dem na ci lu bëri lo xamanteni bëgguma ko ci dugal ci waxtaan wi ndax bëgguma mu soppi jotaay bi Hmm. ah waaye nag bis dina jot ñu gën a kii ndax euh, wax dëgg yàlla ku am dëj du tëgg sabar hmm. du dëgg hmm. <laughs> waaw waaye euh, mu ngoog daal lu doy waar la incha allah dina ñëw dinañ ci ñëw su neexee yàlla incha allah incha allah taala kon ceer na bismillah jërëjëf jërëjëf incha allah sa waxtaan bi jaar na yoon tamit kontaan nañ ci mbokk yëpp jërëjëf nañ mhm. si sant yàlla li lépp day wane si cofee ci yonente bi sallallahu alayhi yëpp tamit euh, xam niñ tey lu dëgër la bu ko kenn fowee ndax euh, yàlla tudd nga fi euh, makatan karam delluwaat xel ji dégg-dégg yi ñu am mu si kenn topp ndax ku si topp rek sànq ndax bu yàlla ne jublu rek wax amatul lu dul jublu leen ci ñu moom tamit jublu ci feneen it ñëpp fu mu leen jublu ndigalam rek mooy mooy dox nekk yu am solo ci néegu kaaba bi indi yu am solo ci eh, madinatul munawwara ci ziar yi ñu si tudd tamit macha allah yëpp ñu si kontaan muy suñu yokk yokkute àddina ak àllaaxira yal na yàlla nangu mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. comme ni ko waxee maam Adama képp ñu ngi ko ku mu yéen a musaan wàcc dem jàng fa yàlla loolu rek da da na sëkk ci jullit mun cee eh, roy yàlla bu ne def leen rek eh, dafa am lu tax yàlla ngi fépp waaye bu ne jaar leen fii rek ñëpp war a jaar hmm. donc yenn kàddu yi ñu ko waxee kàddu yu rëy kooku musiba gën koo rëy donc nit bu rek mënu koo tudd ñun kàddu yi ku alku rek koo tudd donc ñu di ñaan ñu ñaan yàlla rek yàlla sàmm yenn kàddu yi du mos a génn si génn si làmmiñ incha allah yal nañu ko yàlla defal. Euh, néegu kaabe gi tudd nga fi néegu kaabe gi ak néeg bi ko féete kaw baytu maamu di ay jaam jaam yu jaam ci suuf ak jaam yu jaam ci kaw mhm. te lépp di si euh, euh, ndigalu yàlla mhm. ñu nekk ci kaw di jaam ci ndigalu yàlla la jaamoo ñu nit euh, ñu nekk si suuf it ci ndigalu yàlla la ñuy jaamoo moo xoolee même ci bi yàlla ñooñu ci yàlla nuux mhm. bi ñu yegee ci gaal bi

gis mu fenn fu amul ndox fu dul fii ci kaawe gi foofu rek laa gis ne labul loolu rek laa fi gis donc loolu yëpp day wane bërëbu yàlla la fii lab yàlla waaye lii am na lu tax yàlla labalu ko ndax jaamam yëpp foofu lañ koy jubloo dépp ci maam Adama ba tey donc day ba tey loolu dooli dooli kaab dooli kaaba euh, ëpp naa wax di si wax ci moom lu ñaaw moom ëpp na même yonent bi sallallahu alayhi boo gisee mu sopp euh, màkk du nu mu fa juddoo bërëb yàlla bi fa nekk moo tax ndax ñi ko jiitoon yëpp dañ fa daan jaamu yàlla mm-hmm. donc jaamu yàlla bi fa nekk rek moo tax yonent bi sallallahu alayhi gën na gën ko sopp euh, dëgg la sax fi nga juddoo màggee fa yaroo fa mm-hmm. bërëb boobu da koy bëgg mm-hmm. waaye tamit surtout néegu kaaba gi nga xamante ne depuis ay ki ko jiitoon yëpp fa ñu doon jaamu yàlla. d'accord ah te ndonoom la moo war a jàppalewaat nit ñi ba loolu taxawaat donc loolu tamit bokk na si cofeelam ci yonent bi sallam ak yonent bi sallam sallam ci néegu kaabe bi donc yooyu yëpp day wane euh, màggaayu kaabe bi ak dooleem mhm. euh, di wane tamit ne bërëbu di wane tamit yàlla la mhm. bërëbu jànkaay yàlla la di ko waxee boo ci tegee sa bët première fois moo tax euh, euh, bu ñu ne ñi nekk arab saoud duñu duñu wér loolu bu leen neexee mais ñi nga xamante ne kaaba gi yow nga xamante ne sori gi ñoom bu ñu xëyee sax xool kaaba gi yàlla bindal leen tiyaab ñoom ñoo xamante am na ñoo xamante dinañ dund ba dee te duñ mus gis sax kaaba gi mm-hmm. kon kooku bu ñu ko teree jaamu yàlla yeneen façon jaamu yàlla loolu ay ay naxi la. dëgg donc euh, mm. loolu yëpp day wone dooley dooley kaaba waaye day wane tamit ku nekk fi nga nekk war na ko mën a jaamu yàlla boo amul lële am am lii donc euh, loolu yëpp ci di ko sant borom bi tabaaraka taala ci leeral yi ñu ci andi di sant yàlla ci leeral yi ko yi ñu ci andi donc euh, andi nga ci tamit ci lu jëm ci mun madinatul war ci sang bu tedd bi ba tedd mm-hmm. euh, di rawdam bu tedd bi te mu wax ne rawdam boobu rek ci jardin la ci biir jardin aljanna yi donc loolu rek wane ne madina moom moo ngi bokk am na am na am na ci lu bokk ci aljanna <laughs> waaw madina moom wane ne ne dégg nga sa waaye ne moom aljanna moom ku gis ku gis rawdu yonent bi moom di nga xam ne moom aljana lii ci aljana la bokk partie bii moom ci aljana la bokk hmm. loolu rek lañ tudd ci kaw suuf ne fii moom aljanna la ndax yonent bi ko wax ne rawdam ci euh, raw jardin euh, ci biir fi ci biir jardin aljanna yi donc nga xam ne euh, Madina ak Màkka kenn mënu ko mënu leen tàkkale ndax bërëbam ci aljanna la bokk rawdu yonent bi salaay salaam te euh, dara musta wàcc jóge ci kaw euh, musul jóge aljanna wàcc suuf nit teg si bët lu dul euh, xajrul aswad te loolu ma màkk la nekk mm-hmm. donc day wane doole màkkay madina kenn war ko foowe mm-hmm. kenn du teg sa bët si ci kaw suuf nga ne lii aljanna la jóge lu dul xajrul aswad kenn tamit du du ne. mooy yi di fóon nii. xeer bi gars yi di fóon. Mhm. bon donc tamit rawda bi tamit yéen tamit moo ko waxal boppam. Mhm. te yàlla ko ni ma leen omaa na moom fi rawdaam ci. zaade la ci biir zaade aljanna yi. Mhm. donc diggante mimbaram mimbar bi ak bi ak liyam. ak rawdaam ak te boo boo xoolee néeg la bokkul woon sax ci jàkka yi. boo ko doon sax ci jàkka ji néegu Seydina Seydina Aïcha ci la tëdd mooy néegu imam ñu ngi wax néegu imam ndax moom da daan génn ci néegu Seydina Seydina Seydina Aïcha rek dugg ci mimbar bi julli donc bu nee foofu ci lii la day wane doole Madina ak Màkka hmm. loolu moom moo ko waxal boppam hmm. jëlee Thierno hmm. benn sew-sew rek foofu xam nga am nay jamono ñoom yenn borom xam-xam yi même am na ñu nekk Sénégal sax doon nañu wax lu demee noonu te loolu pour man euh, wax du ko gën a garaaw du ko gën a rëy ci kaw suuf mm-hmm. ñu wax ne euh, raw du raw du mm-hmm. yonent bi dañ ko war a génne ci jàkka ji mm-hmm. mais loolu comme raw du yeneen sëriñ seeg yeneen nit yàlla yi euh, bien que ñoom xamuñu sax loolu moo tax dinañ def direct spécial wax lan moo tax nit yàlla yi ñu leen di ziar te fekk seen jëmmal lañ suul du def loolu dinañ ko leeral te loolu yonent bi moo moo gën a kawee ci misaal bi ñu bëgg a joxe li mu bëgg a wax foofu mooy cerno yonent bi moo wax ci xadis bu wér kenn du ko weddi mooy li nga wax maa bayna mimbari wa rawdati rawdatu min riyaadil janna wa xabri rawdatu min riyaadil janna mais yonent nee na seen na ak sama xabru ak sama mimbar am na jardin ci jardin aljana yi waaw xanaa soo bëggee dindi euh, ka fa tëdd nga ne dañ ko war a génne ci jàkka ji mm-hmm. parce que loolu bokkaale yàlla la mm-hmm. waaw mais xanaa kon ma jardin aljana boobu da nga ko war a dindi mm-hmm. li ma bëgg foofu mooy ñoom li ñu xamul ne jardin boobu ñuy màggal defal ko ay tapis spécial pour wane ni fii mooy jardin bi yonent bi doon junj mais barke jardin boobu moo ngi amee ci barke Seydina Muhammad kon fu jardin ba tëdd di ay ñax kase yonent bi war na faa mën a tëdd bisimilah coow bu rëy la coow bu rëy la si euh, bërëb bi mu tëdd ndax xam nga gars yi moom li la neex la ñuy wax dem nañ ba comme ci biir jàkka ji la bokk. moo ñu dal sax ñun Sénégal tey boo xoolee comme ku mel ni Serge Mali. Euh, rawdaam euh, rawdaam bi bokkul bokkul woon ci jàkka ji. dañ ko yaatalaat ba mu duggaat ci biir. jàkka jee ko fekk ji jàkka jee ko fekk ji waaye moom fekkwul jàkka ji. déedéet yoon ci sala la woon. wax amoon na wax ju rëy ci biir Madina ba boroom xam-xam yëpp toog ñu ne léegi dañuy àtte chaque jour dañuy euh, buñ tasee duñu duñ jubu Cheikh Omar Dia moom da wax histoire bi mhm. mu ne bés buñ tasee duñ jubu ba seen euh, lii ki njiit ki jiitu woon euh, seen ami bi Beaugenza mhm. ne comme que yéen ñi ñu weex ñi mënoo leen fexe ba daje ba wax lu leer léegi dañuy ut ci africain yi nit ñu ñu ñu ñu xool ndax ñoom am nañ ay borom xam-xam ñu ut si nag ci ay Nigéria yu bëri Nigéria yu bëri Alpha Hashimi ci la bokk. Alpha Hashimi fukk ñi ñu tànnoon Alpha Hashimi ci la bokk. waaw kan mooy Alpha Hashim Thierno. Alpha Hashimi mooy niw Cheikh omar bi nekkoon Madinatu Munawar. lanu Cheikh omar doomu doomu Magam. doomu Magam Magam ban. Ahmed. Ahmadu. Ahmadu. Alpha Ahmadu. Alpha Alpha Ahmad. Alpha Ahmed Alpha Ahmed ak Cheikh Omar ñoo bokk benn bàyyi muy Saïd. mooy Saïd waaw. kon Alpha Ahmed moo jur. moo jur Alpha Hashim Alpha Hashimi. Alpha Hashimi Alpha Hashimi moo toogoon Madinatul Munawwara. moo nekkoon Madinatul Munawwara dem ba nekk mufti Madinatul Munawwara. Makka ak Madina yëpp. Makka ak Madina waaw bisimilah moo bind Daarul Habibi qulubuna tahwaha xam naa ne Mouhamed bi dafa nekkoon moom ñu dóor ko waaye nag incha allah dinañ ko waajal lu dëgg Thierno. incha allah bisimilah Thierno ñoom fukk yi ñu tànnoon. Alpha Hashimi ci la bokk. léegi ñoom ñoom ñëpp euh, xam nga ñoom ci borom xam-xam yi ñu gën a ràññee Nigéria ci la bokk. Mhm. donc nag ñoom ñëpp ñu ne kàddu gi jël nañ ko tegaat nañ ko ci loxo Alpha Hashmi. Mhm. Alpha Hashmi moo àttee moo leen àtte mu ne leen raw di yonent bi ndax si jàkk ji la bokkoon ñu ne ko déedéet néegu néegu soxnaam la woon. Mhm. waaye léegi du dem na ba dugg ci biir jàkk ji mu ne leen fi diggante fii ak màkk ni mu yaatoo yéen kay boo buggee jàkk dem leen foofu. te ngeen buruk bërëb jàmbur ñu ne ci la ñëpp tàccoo ne wax ji jeex na bi ne bu ma déggati kenn di ko tudd jeex na te àtte boobu ki ko àtte alfahash ñu la te sen te seen euh, askanam euh, lii liiwu Cheikh deretam deret Cheikh Umar la donc euh, histoire yu lii la yu xaw yaatu la mhm. te ku nekk ak ni nga xalaatee am na ñoo lu xalaat ñëw si rek loolu la dañuy indi donc nga tuddaat si tamit lu mel ni euh, imam malik naanas naanas xamante ne léppam di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, amoon nañ sax benn buur bu ko daan yónnee ay hadiya euh, dëkk bi laay fàtte am na benn buur bi ko daan yónnee ay hadiya mm-hmm. hadiya bu ay ay ay ay wurus bu ko yónnee rek day jël denc bu mu ko yónnee mu jël denc ba benn bis buur bi ñëw ne ko dama bëgg nga ñëw tux nga tuxu si ñëw sama dëkk di jàngale mm-hmm. mu ne déedéet mu ne ko toj mu ne buur bi xaaral mu ñëw mu xaar ko mu dem jëli li mu ko daan jox ci adiya yëpp mu andi mu ne am say moo ngi lépp mooy jëlee ma fii li ma xam naa xam naa li bu moo tax yàlla ma ci lépp maa ngi ko denc mu ne man li may li may li may li tax may fonctionné ci xam-xam leer bi mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi sama branchement ci moom la bu ma fi jógee dama xamas dara jëlal say addiya tam nga bàyyi ma fii ma wéeru ci raw dugg te digg di jàngal donc ñooñu ñoo xamoon euh, kan mooy sang sang bi sallallahu alayhi wa sallam ma jox la si noor war a jërëjëf kan jaaraama Thierno Racine dafa mel ni tey tabaarakallah waxtaan wi léeg-léeg yow li ngay xaajal di xalaat sax ak di ko waajal du bokk li am da hmm. xam ni tabarakallahu yal nañu yàlla boole dimbali daal jarul kii daal waaye alhamdulilah Thierno jërëjëf dafa mel ni xol yëpp branché waat na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw xol yëpp branché waat na ci moom xol yëpp delluwaat na màkk ñëpp amaat nañu envie dem màkk dem madinatul munawara dem foofu ndeysaan jël sa tànk yi nga dëgg ko ci fa yonente bi doon dëgg tànkam yu tedd yi waaw ëpp na ndax waaja ba ba mu déggee ku nekk di wax yonent bi naan xaw ma lan ak lan ak lan ak lan moom mu ne daal yaa laytanii kuntu turaaban tamshi alayya bi makkata waaw man daal du ma du ma sañoon du ma nekk sab dàll sax waaye suuf lay doon rek. Hmm. salu sa tànk yu tedd yi di ma dëkk sallallahu alayhi wa sallam waaw nga xamante ni lépp teraanga àdduna ak alaaxira yépp moo nga foofu waaw foofu bokkul ak fenn. wallahi am na loo xamante ni ku koy wax wala nga koy xalaat dangaa ngaa demagul <laughs> da ngaa président doo doon réew yooyu ak Europe yi loolu loolu mooy panafricaniste ya nekk foofu mais soo jëlee sa tànk ñëw fii. dafa mag def ne war ñii di dem aji ñii di aji. buñ daan dem madina rek ñii bis kenn du la ñëwee xool ndax leer ñu coono yëpp màkk la nekk. mu ne ku jóge Madina rek ñibbisi mm. kenn ñu mu wala xool ci leer bokkul foofu lu fa nekk beneen affaire la cer mm. beneen beneen mbir la de waaw baladun bihi kullu fadailu jummeat waaw ba mu waxee loolu waykat bi gaa yëpp dañoo taxaw yaakaar ni seen dëkku maami loolu seen dëkku bàyyi mm. mu ne déedéet tilkal madinatu laa aqulu siwaaha <laughs> mu ne réew mi nga xamante ni lépp luy teraanga fa la ko yàlla dajale dëxañ ko fa te dëgg la moo yonent bi mu ne tilkal madinatu man dëkk bi may wax mooy madinatu mun a war a de laa aqulu siwaaha waxuma beneen dëkk ci kaw suuf beneen dëkk nag bu bëgg mën na tibb ci barke moo tax mag ñëpp seen dëkk yi maa ngi lay benn secret de hmm. nit yàlla yi ngay yëpp yëpp seen dëkk yi madina lañ ko tuddee waaw suñ ko ko tuddeewul nii ci tur tamit nii wala ñu wax ko ñëpp dégg ko ci baatin moom lañ ko tuddee parce que dëkk kenn mënu koo tuddee beneen tur muy am barke bi wéy loolu nga tuddee ko Madinatul Munawwara maa la ko wax. dëkk yëpp nag dëkk boo dégg mu am barke. wilaaya am fa leer am fa xam-xam am fa Madina lañ ko tuddee ñu tudd ko ci kaw ñu tudd ko ci suuf même bu dee beneen tur lañ ko tuddee xoolal rek la xew Madina ak la am Madina rek la ñuy jéem mu am ci dëkk boobu. maa la ko wax nga xam ni kon Madina du fenn waaye Madina moo nga jugee ca Màkka Màkka mooy Madina Madina mooy Màkka xajarul aswad nga fee Thierno wax na ko. rawdatu miriyaat di jeune jardin boobu nga am doo fay toog di nelaw moo nga fa loolu yàlla bu ñu ëmp yàlla nañ fa toog yàlla dem foo ñu xajaru la son xanaa yàgg ngeen a dégg way woowu ah machamu maqsaduna kalla wala xalabu lakin li mar makkata min naa turxalu nu jëm ñu ne ko foofu mooy fan mu ne ummul qura lastu ansa istu qarribu nii waaw waaw makka makka lay junj noonu waaw faaqa jamia biladillahi takrimatan waaw waaw kooku du du du beneen réew waaye di nee na man demuma Sham demuma Syrie demuma Halab mooy Alep bi ñuy bombardé hmm. ñu ne fooy jëm mu ne man Makka laa jëm umul qura ndeyu dëkk yëpp moo jur ñëpp ndax fa la dund tàmbalee <laughs> fa la aadama tàmbalee hmm. fa la ibrahima mi nuux tàmbalee fa la ibrahima mi dundalaat nu bu watu foofu la tàmbalee ki tëj jàng yëpp muy Seydina Muhammad fa foofu du caaxaan foofu bërëb bu doy waar waaw bërëb bu doy waar la waaw yàlla nañu yàlla boole ci mbir mi yàlla nañu yàlla surtout ak ah, gars yi xam nañ ko de moom am na benn xasida bu xam ne spécial yaa kaabatallahi yaa kaabatallahi waaw boobu dem na Màkka ba def ay mu xam ne jëmm jaa dem waaye xol baa ngi fa des hmm. muy tàggu kaaba gi mag ñun ñëpp duñ demaan dañuy jooy jooy xacc parce que xam nañ ni waa ji fii la tëdd waaw ah, ñoom ñëpp kenn ku ci nekk laa la wax waaw ah, Cheikh Oumar Fouti moom dem na ba tarbiyaam moom ko defee foofu waaw ah, kooku fa la jàngee jeexee nag ndax foofu mooy bërëb bu barke barke àdduna ak àllaaxira yëpp moo ngi bàmbee koo foofu foofu du caaxaan xoolal xoolal Cerno foofu laay daanelee xolal Thierno yonent bee ko wax de xadis bu wér la gaa yëpp xam nañ ko yonent nee na bisu altine bu nekk ak bisu alxamis bu nekk yi jaam yëpp dinañ ko indi ci sama rawlu ci madinatul munawwara waaw kon foofu mooy bureau yàlla sëñ bi mooy bureau yonent bi sallallahu alayhi wa loolu bu caaxaan sëñ daara loolu dafa fort ah. moo tax maa ngi soo ñaat mbokk yëpp nañu def très attention waaw yooyu si yooyu yu sacré la buñ nangu buñ ko fooye buñ nangu ku ko fooye tuddal naa leen yëpp yi ma ci njort makka madina alquran sunna euh, fan yonent bi ci boppam mm. Mm. kilifa diine yi mm. néegu yàlla yi xam-xam université diine yu mag yi yooyu buñ ko fooye buñ nangu ko fooye parce que duñ ko fooye rek fooye yàlla fooye diine <laughs> yàlla kenn du ko gis kon doo bëggee jot ci moom da ngay jaar ci ñim jot te yàlla amul lu ëpp lii ma wax ci kaw suuf li ma am yëpp ci la ko def ci la ko feeñal Madina ngook ñun ñëpp tey ji yàlla na suñu xol yi fanaan Madina te du demee nag yàlla na fa dëkk nag te faa jógee ci yonent bi di ko fóot di ko raxas di ci sotti ay leer. amiin aywa yàlla yàlla defal yàlla nañu yàlla defal mahabba rasulillah. yàlla nañu bëgg Madina. xoolal Cheikh Umar daa bëgg Madina ba doomam jooju ñuy wax Fatima Madina la ko tuddee sax far moo tax ba tey kër Cheikh Umar am nañu tudd Madina seen taaw yi Madina dañ koy tuddee waa déet li ci gën ah déet ma ne li gën a neex xeeñ waaw ma ne waaw Thierno Omar hmm. li gën a neex Thierno waaw ponkal ma ca Dakar nu mu tudd Muhammadul Madani la tudd ñun ñooy wax Madani rek waaye Madani la ah ah ponkal ma ca Louga nu Maki, tudd Mouhamadul Makki mm-hmm. Makki mooy ki dëkk Makka mooy le Mekwa mm-hmm. Madani mooy ki dëkk Madina mm-hmm. Cerno Madani la Madani ñun wolof yi wax Madani waaye Madani la mooy ke dëkk Madina. loolu junj la Cerno Basiru mii am na doom bu tudd Madina mm-hmm. Madina la tudd Madina ci boppam Madina far du sax Madaniya Madina mm-hmm. mu dellu ca Faatimatul Madina ma daan jàng junni Jawharatul Kamal par jour mm-hmm. man 65 kii rek ñetti fan laa ko def xam ne du dox ma yem ci samay fukk ñaar. waaw su seen kon maa ngi yow yem fala man dama ko ñaari sax dama ci benn bi laa nekk man ba suba ngoon bi sax dama koy xoolaat tu vois gaa yaa ngoog ñoo xam li xew bu ñu ay nu lañ de duñu dara soo leen gisee seen kanam yi rek nga xam ne mosuñ ci leeru yonent bi parce suñu tudd turam rek bi ku am mahabba yonent bi xam nga ci xasida bi nga tegoon ci ngoon hmm. maa ngi koy wax lu ma ko wax dama ne ko yaa rafet te yaa rafet ku la sopp sax rafet jëmm ak jikko yaa rafet muhammadu rasulullah haj malik jaw waaw boobu maa ngi jéem a fiiri jawat kamal ma ne ko yaa rafet yow yonent bi te yaa rafet ku la sopp sax rafet jëmm ak jikko yaa rafet muhammadu rasulullah yaa rafet démb yaa rafet tey yaa rafet ci zahir yaa rafet ci baatin yaa rafet bi nga nekkee leer yaa rafet bi nga nekkee Mouhamad ibnu Abdillah yaa rafet bi nga nekkee Mouhamad ibnu Abdillah yaa rafet bi nga nekkee Mouhamadu Rasulullah yaa rafet bi ngay dund yaa rafet bi nga faatoo ku la sopp sax rafet ma ne yonent bi loo ñaaw ñaaw comme man soo bëggee yonent bi te muy dëgg ci yow sa ñaawaay day réer yàlla taaru yonent bi lay feeñal ci yow bokku la gi sopp la dëgg la de xëy li may wax li ma waxoon ci ngoon ñëw ma ko wax ci Facebook bi. Racine yaa ngi fàttali. Mm-hmm. ah mm-hmm. ak yow li nga waxoon tamit. Mm-hmm. Ah, <laughs> wala wala waxoon dara. <laughs> dé Racine gars yi dañuy suivre bu bu ma booleeg waa réew mi. Ah, waxoon naa kay. waxoon nga dara waaw loolu. loolu loolu yeneen di bëri ku ko mën. man ko ku la sopp sax rafet. te léegi du la doo ko soppee rafet léegi ñaata rafetaay nga am ñaari rafetaay. da am rafetaayu rafetaayu jëmm. rafetaayu jikko. Mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. waaw kon nag yàlla nañu yàlla boole dimbali. te defal ñu mahabba rasulillah. Mm-hmm. su ko defee comme gars yaa ngi waajal yoon wi. tabaarakallah war a delluwaat ca liggéey a ñibbi. ca Évry. tabaarakallah war a jël bus de nuit. man kooku moo doon ñu bëgg a tënk foofu rek ñaan yàlla mu dimbali ñu boole ñu jàppale su borom ñu àdduna ak alaaxira. wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin ñoo ngi ñaan laat soxna Euh, Maguette Diagne yàlla yërëm ko jéggal ko baal ko jéggalaale xeetu yonent bi yëpp mm, sallallahu alayhi wa sallam waax ndawaan alhamdulilah car na kon baax na noonu bu subaa ñu mottali rek jëm ci euh, wëlu yi ak madina ziyaara mm. wëlu yi ak ziyaara mm. kon ñu fanaan ak jàmm guddi gi àjjuma bu la ñu fàtte yéen seen ñaan jaa ngeen jëf mbokk yi nekk fii YouTube tamit ñoo ngi leen di ziyaara ok salaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah ok jërëjëf